dañ doon tooñante wax dëgg yàlla parce que damay bañ nit ñi jaawale mu umpaañ bul ñu filmer dina ko kenn filmé wu la foofu laay commencé déjà wax leen ma du woon sama intention du woon loolu génn ci quoi man maa doon téye suma téléphone mu retax mu wat waaw ah, ma ñëw rek wax leen nii kenn bañ continuer di ko bu demee noonu mais may nuyu ñëpp di leen ziar. kontaan di rafetlu euh, teewaay bi ngeen teewaay tey yéen ñëpp ci réseaux sociaux yi euh, ma ñëw rek livrer un message de sagesse un message boo xamante ne soo gisee mu bëgg ko wax parce tout simplement mu ngi nii di génne assemblée nationale d'après tout ce qui s'est fait mais xol jeexaat na. benn république boo xamante ne nii lay doxe république bu doy waar république boo xamante ni ñun ñi ko bokk kenn ci ñun xamatul fooy teg sa tànk ak fooy teg sa loxo mais ñu bëgg woote woote bu am solo woote bi ñuy woote li tax muy am solo mooy dafa laal njiitum réew mi dafa laal ñi nga xamante ne ñëpp ñoo ŋànk réew mi soo déggee nag ma koy woo directement ñoo ŋànk réew mi te génne ci sëriñ si comme ni ma ko waxee woon tamit c'est que sëriñ si seen wax moom la jiitum réew mi tegatul fu bari maanaam xam nga vous vous li nga xamante ni moo doon bon les marabouts ce sont des citoyens ordinaires je pense que kon woo leen ñoom. ci situation bi euh, néew ma du jëriñ dara de waaye baatin baatinement mën naa jëriñ dara mais zahirement li muy jëriñ du bari parce que ki fi nekk ak nu muy doxalee ñoom mënuluñ ko dara parce que il est déjà pris par des citoyens ordinaires te nit nag bu fekkente ne supérieur la ci dara mënatoo nekkaat di di waxtaan ak moom. ci yu bari yuy jëmale réew mi kanam euh, may def appel au président Macky Sall euh, di def appel au procureur pour mu gën a leeral mbir mi ba mu gën a leer parce que kii ñu lever immunité parlementaire am tey du Ousmane Sonko du Ousmane Sonko de na ko sénégalais yëpp jàpp. man nag li may wax mooy ne sénégalais yëpp jàpp ni le député Ousmane Sonko détient son immunité parlementaire parce que bu fekkente ni la commission ad teg nañ ko tey jëm ci plénière même bu ñu demee plénière nañu jàpp ni le député Ousmane Sonko n'est pas visé dans cette affaire yàlla dafa def ni. dañu wax ni la le député contrôle l'action gouvernementale c'est Béni oui oui qui était dans ñi euh, nekkoon ci salle nga xam ne c'est des Béni oui oui ñooñu nga xamante ne lu ñu voté rek xalaatu nit nañ ko voté ëllëg koo ci wowoon tey ni ko ndax xam nga lu procès verbal ba wax mu ne la xawma ko yàlla dafa def ni xoolal lii lii yëpp na ngeen ko xool tey presse bu ko am rek wala nga génne ko man maam jaara faam nii maa ko yore woon teg ko sa loxo ndaxte lii contrôler action gouvernementale la tudd man bu procureur waxee walla policier def enquête wala gendarmerie def enquête mais man am naa droit xam lan moo nekk ci enquête bi parce que tout simplement dama def sama liggéey gis nga lii defuma ci benn parparloo je suis tout simplement di côté de la vérité palant bi visé wul Ousmane Sonko dafa jël li nga xamante ne pour ma wax leen ko lii italien naan une poche parole ah ma ma leeral leen ko euh, Ousmane Sonko bi aji Sarr ñëwee dafa plainte ku ñuy wax Ousmane Sonko loolu moo nekk fii wax ni daf koy daf koy. sàkku ñu def enquête yi gis ni am na ay zone d'ombre ak ay incohérence ndax lii enquête la du fen enquête procureur dalay gendarmerie dañ lay woo nga defee ni wax nga ba pare waaw kay waa daanu naa ñu woowaat la ñu wax nga wax defe ni wax nga pare ñu woowaat la sur le feu de appels répétés ak seen question yooyu nga xamante ni c'est des questions clés ndax daanaka question bu ñu la posé tey moom lañ lay posé waat suba te boo ñëwee boo changé version rek fii lañ koy bindaat xale boobu bu muy porte plainte dafa ni maa porte plainte Ousmane Sonko ñu woo ko ni ko ndax yow yaa ko bind plainte bi mu ne maa ko bind bon plainte bi moom finir na sur le net yéen ñëpp xam ngeen ko plainte bi moo ngi ci net bi mais plainte bi exactement Ousmane Sonko la visé du loolu la waxoon moom aji Sarr mais ba procureur dégloo ba ba gendarmerie dégloo ba jébbal réquisition ba jébbal euh, euh, procès verbal bi procureur procureur moom dafa vise x mu ngi nii procès verbal de synthèse x x nag n'est pas égal à Ousmane Mais dans leur tête, dans cette Assemblée nationale, l'équation X égale Ousmane Sonko. jàpp naa ni ci dëkk bu sérieux ci république bu sérieux ci république buy dox ci yoon ci république buy dox ci dëgg lii warul woon mën a nekk fenn wallaahi azim barke kaaba ga ma ñaari yoon billaahi lazi laa ilaa illaa huwa ñi ngi tooñ Ousmane Sonko ñi ngi tooñ Ousmane Sonko parce que juge d'instruction huitième cabinet procureur daf ko jox dossier bi ci suba nga papaam gaañu ma koy jaale ndax juge la ndax nit la ndax sénégalais la moom deful benn enquête juge bi dégluwul aji Sarr ne ko Adji yow lu xew juge bi dégluwul ma juge bi kenn rek la mënul déglu ci dossier bi mooy Ousmane Sonko ndax amagu eggagul woon fu muy demander levée wu immunité parlementaire Ousmane Sonko fi ñu toll woon moo doon juge bi dëj bàppaam ba pare ñëw jël dossier bi toog ci bureau def ay enquête am woo plaignant bi déglu ko woo les témoins déglu leen daal di nag saisir le ministre de la ni ko ah man day soxla woon naa ku ñuy wax Ousmane Sonko ndax vice de forme fa mu commencé mooy ponkol mu toll ni Ousmane Sonko bokkul ci parti yóbbaale ma du parti yóbbaale ma de daa dem compétir comme ñëpp dem compétition dem xeex gagné ay élection am ab député en sa personne nga dégg ñu wax la ci règlement intérieur ne la yow député dafa am mbalaanu kiiraay bu ko muur boo xamante ne kenn amul droit convoqué ko yow nga jékki-jékki rek convoqué ko vice forme loolu rek jaroon na bañ a lever malaanu kiiraay Ousmane Sonko loolu kese kese kese jaroon na arrêter la procédure parce que vice de forme daa waaye comme ñii yàlla daf leen bind ay nit yoo xam ne du ñu te la xewoon la woon a gari ndax dafay am moment boo xamante ne état day jël ay responsabilité waaye booba la Macky Sall ni waroon ne arrêté leen moom musuma gis ku ñuy fu ñuy convoqué ab député xanaa ancien ministre sax di nga ko may wala ancien député sax boo ko dee doo ko doo ko convoqué noonu di nga ko convoqué ci sutura donc moi je pense que ca commencement ba la la waroon a xew xew ñu waroon na arrêté ñu ñëw ci li xew tey ak li nga xamante ni moom la procès verbal yi indi madame Adji Sarr dans le procès verbal ngeen baal ma parce damaa am ay doom te moom sax sama doom la ndax li tax muy sama doom euh, Fabi euh, Fabi Fabi Fabi Fabi Rasta Sarr Fabi Sarr muy ko jur fii ma dëkk la dëkk tantam bi ko yore woon ba ñu génne ko ci kër gi fii la dëkk kon doomu ginnaaw raay la doomu dëkk bi la te man fii laa dëkk donc tey lu mu metti metti du daw ni eh, moom fii la dëkk wax na ci procès verbal bi ni dafa ëmb papaam daf ko génne papaam la veille le le surlendemain de faits la rastasaar ñibbisi ginnaaw raay gii fii may romb nii fii la rastasaar ñibbisi fii jóge Gàmbi waaw te moom dafa ne moom dafa ne ah ki nga xamante ne mooy papaam daf ko génne kooku xamul sax kañ la gëj gis papaam xam nga nit tamit dangay ngay waxal rek te yàlla tax affaire bi du Adji Sarr ndax dama bëgg a xam kan mooy Adji Sarr la personne de Adji Sarr ba tax lii yëpp am man mii mun naa leen wax benn affaire viol yàgg naa am viol viol ak a yàgg am du lu bees de du lu bees est-ce que viol mës naa am bu amee ampleur nii bu rëyee nii bu magee nii yow benn nit rek ñu jiñ ko dara infiro rek nga ni bërët ne duma dem Oumy Diop yaa ngi may xool nii laa la defal waaw waaw euh, sama doom yi xam nga sama yére yëpp may sol sama doom yi ñoo ma koy jox kii mag yaayam ñoo bokk ndey ak baay mbubu bi ma sol tey woon Macky Sall comme nee na bëggul ku sol lu xonq ma sol lu xonq ba mu neex jël bandoom bii nga xamante ni léegi daf koo def chiffon teg ko ci kaw Euh, kooku mi ngi doog a ñibbisi nga ñëw ni Ndeye Khady man sama papa damaa ëmb sama papa génne ma ban papaam xanaa ñetti papa wala ñeent dafa am ci àdduna gis nga procès verbal bi bis bu ko nit ñi liiree ba mu tas non ñëpp loxo yëppay dem ci gémmiñ loxo yëppay dem ci gémmiñ parce que dañuy xam ni c'est fomenté cocoté de toute pièce complot la du complot sax scénario la boo xamante ne scénariste bi demul jaarul daaray Kocc xam nga nit moom wala nga sew am xel wala lu mais boo xasee ba pata pouf pouf en général doo am xel sa bidon la nu mu defar xam na ni moom mu ko defar wala ñi ko jàppale ba mu defar ko sax xamuñu dara moom naka la mën a bugg a jëlee nit di fexe nit di ko jaay di ko jiiñ pour ñu jiiñ ko viol nga coppati ko foofu dem ne yow yaay jël nag sa 4 x bu noir dem jëli nit ki ca fañ ko violé le procès verbal parle ngeen baal ma parce que sànq buggoon naa ko wax d'une première pénétration xam lan mooy première pénétration <laughs> Euh, première pénétration mooy maanaam jigéen bu musul sëy ba ñu njëkku ko sëy xale yi jamono ji di xaar war koo tuddee loolu ñuy wax ñi ñu naan nuit de noces ñi naan lune de miel ñi naan jébbale ñi naan nangam tout un chacun a son appellation à faire là procès verbal boobu ndaw si dafa ne du moins que mësuma def rapport sexuel or que la dame était sëy xaw a tas kër gëm sëy xanaa jëkkër ji dafa yoomoon bon attendez nous on n'est xale bi dafa mës a sëyi aji raabit saar mi dafa sëyi woon soyez sérieux yéen a gën a xam ne le dossier est léegi soxlawu leen lii bi Ousmane Sonko ngeen bëgg a omelette noonu rek parce que daf leen di déranger nu leen Karim di fattee nu leen Karim di fàtte noonu la leen Ousmane Sonko di déranger di leen wàcculoo sekk naa nga honorable maa ngi lay ziar tu as été très bien représenté dama lay wax dëgg ay wax ponkol mu toll ni ñun màgg ba fu yàlla neex mu ne yàlla fii doy na nga naan ñu première pénétration ñun ñu dëkk fii ci gëble gi xam li xew xam li xew nag saa yu nu xëyee yëf yi raam jëm ci ñun léegi kay nit boo xamante ne yow dangaa jàpp ni Ousmane Sonko daf la doon violé ah daf la doon violé mais yow léegi yow yaay laaj Ousmane Sonko kañ la ñëw parce que confrontation Ndeye Khady Ndiaye ak xale bi nee nañ ko est-ce que yow yaa doon laaj Ousmane Sonko kañ la ñëw euh, paa bi mu ni waaw maa ko laaj mu tol ni aji raabit saar màgg ba doon yàlla fii doy na naan Ousmane Sonko laay xaar te daf may violé léegi kay tuddatul viol ubbi tànk la kot bu fekkente ni thèse bi foofu lañ ko bëgg a yóbbu man maa leen ko yóbbul fu mu nekk man de sama violeur duma ko fa xaarte nag sama violeur duma ne mukk gone ga jóg fi ndax dan maa war a violer te dans ce dans il est bien écrit que Adji Sarr moo ni madame moo ko ko def ci doigt ko génn le temps que le client se prépare pour solaat yéreem il passe à elle passe à l'acte pour woote téléphone selon selon selon Mama Ba yow kii lay violé nga xam ni bu amama yow am nga sécurité déjà di ndax dañ la ne ñaari nit a ñi nii nañ la àndandoo maase diw ak diw yow bañ la ne nañ leen àndandoo leen ñu maase leen yow nga piis ki ci des ni ko booy génnal waay waaye yéen du leen laaj ndax lii viol la bu dee dañ bu dee viol am na ndax viol la wala ubbi tànk la ñii ñoo yab nit ñi dëgg-dëgg ñii dañoo yaakaar ni ñun. ay imbécile de jëlañ yu ñu wàcce sur terre ni ñu foutez nous le camp vous êtes des cerveaux cerveaux vides ne parlez plus dama leen di laaj dama leen di laaj laaj bu leer dama leen di laaj rek te yàlla rek tax ndax ku ñuy violé di nga wax ki la mën a nekkal sa sécurité ndax police laaj na gendarmerie ay gendarmerie maa leen bëgg tey woyal naa leen nee naa leen naa leen créer fan sa club fan sa club protégeons nos gendarmes enquête bu leer naññi naññi naññi nañ dama ne lu enquête bu leer yow yow ba nga xamee ni Ousmane Sonko yow Adji saa yoo génne dalay violé pour lan nga ne mama ba ba génnal mu ne uh-huh. Ousmane Sonko moo ma def signe ni ma na maman baa génn quelle quelle fabricatrice de de de complots quelle menteuse je ne veux pas la juger de son âge dont ma dernière fille qui est plus grande qu'elle quand même mais elle a elle a presque son âge sama caat maanaam mais moom moo mën a yow nga i kii bu génnee dalay étrangler dalay parce que étrangler bi sax dama ko dégg parce que waa assemblée nationale dañoo yore benn rapport bu ni ci étranglement or qu'ici le rapport ne parle pas d'étranglement léegi nag sénégalais yi rek lay poser ay questions à savoir kii est Adji Sarr pour se faire escorter la nuit d'un couvre-feu 23 heures passées par une avocate et un médecin. waaj saara fort man de bun ma man day doom bun ma weela woon xam naa ni kenn du ma escorté aji saar yaa fort aji saar daal ku foor la ku am doole ci réew mi yow ban la violé yaa naan pare naa violé nan ma ba noppi kaay leen jël si ma léegi buñ lay buñ lay jëli buñ lay jëli buñ lay jëli laa la wax yow euh, euh, je vais répondre à votre question Fatima Rasoul après buñ lay jëli yow yow yaay woo ki lay jël si parce que violé nan la léegi kile lay si moom bu ñëwee di la jël si yow mii yow ko naan yow yaa ko naan ankay avocat laa wax waxuma avocat de avocat wax fii ci Sénégal nous en Italie defe naa ni ñun ñëpp avocato la ñuy wax <laughs> yéen Sénégal yéenay wax avocat ak avocat avocat il faut ngeen yekk ci te e pour que les gens puissent comprendre que là il s'agit d'une et non deux faut que ça soit clair parce que affaire yi parce que affaire yi dafa dafa nekk foo xamante ne damaa nekk dafa dafa am fu ma toll foo xam ni information yi bëri nañ te yuux mën naa jib fuñ ko foogewul buñ tegee yëf ci yoon rek awakaata waay ku wax lii xanaa aji sàmbeng la awakaata waaw waaw eh, eh, li nga xamante ne résidence Mamoun honorable Nango Seck vous avez raison la la dame Khady Ndiaye a parlé dans ce procès verbal que wu Adji Sarr mu ngi doon jóge ci résidence Mamoun waa léegi eh, résidence Mamoun man de bala ma faa fay lekk man député bii dama koy dajale dama koy dajale dama koy dajale dajale dajale dajale dajale ba ba mën faa nekk yow sa lekk ak sa naan fa la lay jóge kon la question l'interrogation où est Adji kan mooy Adji Sarr pourquoi une telle escorte au milieu de la nuit que faisait à cette de la nuit kan moo rédigé la plainte Adji Sarr ni man te Adji Sarr en question leeral nañ ñi ne ci ay mbokkam li mu am ci njàng sorewul donc cette plainte ne peut pas rédigée par aji Sarr incohérence totale même si c'est permis parce que quand booy rédiger su la neexee tu peux te faire assister par ton avocat kenn du ko dindi mun nga ko dara du ko dindi su la neexee tu peux te faire assister par la police amul problème mais nee na moom moo bind plainte bi ak rëy fit donc jàpp naa ni yooyu incohérence Ousmane Sonko woo na ma daf maa yónnee message par le biais d'une fer ñu ne la ana message bi nga ne message bi effacé naa ko una mafia si nango e una mafia plainte affaire bi effacé naa ko Sénégal laay wax de parce que man comme yéen da ngeen may déglu te yàlla rek tax ma bëgg euh, ma bëgg leeral leen te yàlla rek tax ba kenn ku nekk jël say responsabilité ku ne jël sa yaay jël say responsabilité man aw ma ci benn problème man moom xam nga man fa laa toogoon nañ ma jàpp nango xam nga ma man waaw parce que lii dafa ñaaw mais quand Euh, dama bëgg rek mu leer ñu xam ne ñun duñu ay naakal duñu ay dof bu ñu république bi nax parce que ñun ñoo ko dul sax nangul kenn nag lii amul base amul base amul fond amul dara lu ci nekk lii lii amul lu ci nekk loo xamante ne euh, nit ñi Pourquoi, maman, pourquoi vous ne posez pas la question pourquoi on part l'enquête sans prendre les complices d'Adissar Effectivement, on a dit que le juge d'instruction euh, euh, euh dégluwul la la plaignante. ma yow xanaa foofu xanaa da ngay doog dabe yow damaa defoon da ngay dabe waa dabel boo paree nga seetaanaat live parce que lu ma fu ma toll dafa am solo ki nga xamante ni mooy Sidi Ahmed Mbaye je leur cite je le cite lan moo tax moom ci boppam waxul avocat bi nga xamante ne moom moo bind lettre bi xanaa mu ni avocat te nag dama ko wax sànq ci benn presse ma li tax ma tagg sama bopp di ngeen ko seetaan du dara danoo yore dereti damel bokk ci ay giir yu baax bokk ci ay jiir yu baax di takk ay ndombay tànk moo tax ma ne man mii Amari Ngoone Yaram Mbaay Jiñaax Demba daal di may sa joor ma daboon ma joojo Njaay ca diggante mbaalum gànnaa guufoo ca la yaasin joxe baay dégg sàmba buuru gaar man du ma kompalool kenn ndax dafa am lu xew te loola dana leer bu ci kanamee ndax fii duñ ko fi bàyyi mënuñu ko fi bàyyi aussi ndax jàpp naa ni man bu Sénégal waree takk xanaa ku xam dara ci dossier bi di nga génn ni maa ci xam te am nañu ci xam nag ndax les vrais comploteurs les vrais les vrais comploteurs ne sont pas fi nga xamante ne moom mooy diggante am na keneen ku leen gën a jàppale ku leen gën a foor am na ku leen téele ku bëggoon exactement neexal ki nga xamante ne moom mooy président Macky yëf yi moom moo jaarul yoon moo tegewul ci yoon mais am na ku bëggoon neexal le président Macky Sall loolu nag lañu wax ba mu teñ président Macky Sall n'a qu'à arrêter ça il n'a qu'à arrêter ça bu bëggee suñu jàmm ak jàmmi suñu jàmmi yaram parce que nag lii kenn du ko nangu kenn du ko nangu parce que tout simplement du lu rafet parce que tout simplement du lu gën parce que tout simplement euh, ma toog nag euh, jël sama temps ferankulaay xool fu làmp gën a leere wax ngeen baal ma ma eggale ak yéen procès verbal bi ci la ñu nekkoon ndax am nañu audition di amee kenn ñemewul bu ñu am na diñ am na bu ma bëggoon lax léegi bu ñu violé woon kan man daal sama waxtaan mooy procès verbal bi Ousmane euh, Sonko mooy maanaam qui porte plaint a cité nommément Sonko or que or que or que ki nga xamante ne moom mooy Sonko juge euh, procureur laaju ko te lool laay jàpp lool laay def lool lay nangu ba keroog may gis lu ko indi kii nga xamante ni commission ad hoc boobu ñu topp seen commission benn wii boobu ñu ngi commencé di ko waxtaane kooku du Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko n'est pas égal à X ngeen baal ma bugg naa tontu question yi mais xam nga ko man duma liveur nag ngeen baal ma liveur si circonstanciel la liveur circonstanciel circonstanciel la quoi euh, ñoom ñoom ñoom seen euh, xaw ma nu ñu koy waxee xale yi ñoom ñooy def ay live sama doom yi waa libéraux yi waa Euh, commi commission yi nga xamante ne ñoom ñooy affaire mais man xam nga mënuma mënuma loolu hmm? l'autre la euh, ñoom ñooy def ay live gars yi mais man une 4 x en attente est un avocat waaw waaw waaw waaw waaw qui a payé les honoraires de l'avocat non non non y bon on peut pas dire que parce que jusqu'à présent Adji Sarr s'est fait représenter ou on l'a pris un avocat mais le nom de l'avocat je vais vous dire hein ce une grande surprise <laughs> eh, non man man man nag dox dëgg yàlla jaay laalo la fa ca rajo ñore loolu géwél yi koy wax mais dama leen di laaj pour voir pour pour lan nit bëgg a yenu combat jàmbur teg ko sa bopp ni maa koy yenu jaay laa la fa ca rajo ñore mais am na ñoo xamante ne topp na rajoy yi waxa waxa waxa waxa waxa waxa wax ba ŋaan ah fii ma toog di wax ak yow bi avocat bi ma dégg ñu ne mooy avocat Adji Sarr ñi kiiwul daal ni ñu koy waxeeti du une personne euh, boo xam ne ñépp xam nañ ko nañu ñaan yàlla réew mi nekk ci jàmm nañu ñaan réew mi nekk ci jàmm réew mi nekk ci salaam parce que réew mi kat na ngeen jàpp ni fa ko le président Ablaye Wade bàyyi woon mi ngi fay bëgg a jóge ndax tey bi ñu génnee foofu sax laay njëkk a waxee parce que bi ñu génnee on nous a euh, xam nga ñun dañu tàmm saa ñu génnee rek police ni dëkk bu ngay wax foofu ñu ne ko bu fi waxee L'avocat, Mam Libas, l'avocat de Hadissar, le nom c'est autre chose. Il, n'est pas connu quoi, même, jusqu'à présent. Ah, euh, je ne pense pas. Qui dit top Bourba Non. <laughs> Euh, ñun daal ñun kay jooy nañ suñu maam Ablaye Wade euh, parce que euh, en tout cas Pape Birame Thiam pourquoi lever l'immunité parlementaire de Sonko alors que la plainte bon pour ñoom x équation égale x égale égale égale Ousmane Sonko parce que daf leen déranger xam nga assemblée nationale bi dinaa leen ko attirer seen attention li nu bëgg a def yëpp ci kanam ah man son man dama téye sama suma téléphone mënuma wax naa leen mënuma dama bugg a wax rek nii pour leeral leen mais man mënuma laay ñoom dama waroon woo ay laa baroon sekk eh, waaye eh, eh, ñoom li ñu bëgg a def fii ak deux mille vingt 24 bugg nañ fi prolonger élection bugg nañ fi changer seen seen ay affaire li ñu bugg def yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp en quelque sorte xam nañ ni ku ku mel ni Ousmane tonko par exemple bu leen ko nangul te xeex lay doon ñu ne xaaral c'est l'ennemi à abattre mais man dama buggoon rek internet yëpp jàpp ni lii dañ ko doon jéem a neexalee Macky Sall mais bañ koy def am nañ ñun certitude ni. amaana waa ji yëgu ko mais instant bi ñu ngi tollu ci waroon ko jéem a neexal pour yokk yenn yi surtout biñ ci commencé tudd ay tour politicien donc xam nga ñu xamoon nañ ni kabal la man nag bu ma kenn wax euh, lu tax mu dem fa di wu déggoon ngeen Ousmane Sonko ne man lu sama yoon ci municipe jàmbur ak baalu jàmbur dëgg la. moo yow maam jaara man sama man Ousmane Sonko mu dem maase wu man lu sama yoon bu dee maase wu képp képp képp képp képp képp non la ñun bàyyi rek xeex rek si Foster xeex waaw waaw waaw waaw xam nga affaire moom xeex tey euh, euh, euh, qu'est-ce que passé aujourd'hui à l'Assemblée et que l président de l'Assemblée évoquait sur la plainte la plainte ça je l'ai déjà dit justement aka wadd moo ñu àqu wadd leen topp waaw kay ale àqu wadd dal Sénégal nag te mi ngi fii ci dent de la mer may saag ma sàmba yirim fara wadd njaag daaro fara wadd njaag alkaati ma sàmba ko duma ca jam borom jam-jam yi ci ramaan mi ngi fii tëdd ci dent de la mer mais àq ma leen jàpp ndax mënu leen président wadd mag mu toll ni moom taxaw fii ni leen trois ans képp ngeen ni déedéet na fi jóg na fi jóg ba ko góor gi dee na ak suul leen ko ngeen defee ne Ablaye waat dina leen bàyyi ak waat du leen jàpp bon Sonko moom euh, Bamba Thiam na nga def ana <laughs> waa ginnaaw raay so maa ngi nii ginnaaw raay Sonko moom euh, man man sax ci avocat yi laa bokk Sonko pool d'avocat la am ku jóg sax ni ñëw parce que dañ maanaam procès euh, boo déggee enquête bi rek da ngay xam ni ndama ciy topp. mais nag nañu xam ni nañu moytu seen bopp saaliyata salaam awa saar gars yi nañu moytu seen bopp am na ak bu leen di waaj a àqu kànjaa ngi leen di waaj a dal de ndax message bañ doon yónnee nit <laughs> boobu naa ko bàyyi moom interrogation la <laughs> boobu moom boobu moom moo leen di taal ñu tàkk ba faw dañoo ñàkk jot te mën a comploter moo tax sànq ma tagg sama bopp ndax na nit bu ma déggee dinañ ah kii kat ñoo bokk maam ni ma amee jom te maa am jom dafa war a am jom nit dangay gore nit dangay gore bëgg naa maanaam man man bu ma man lamb lamb man lamb daa jar ne yenn yee waay waay waay waay waay du an baal nooñ baal kooku mbay baabakat Euh, moom li ci des lépp euh, nday ami jum merci beaucoup mais xeex amul benn problème xeex rek ndoomu nag nangeen ngeen defoon rek doom xeex ndax àdduna moom xeex rek la bu dara xewul rek xeex ndax ñaari bataay gañe nañ ko diggante démb ak tey mooy imposé woon nañ ñu euh, soxna Faat Njaay suñu tànt ndeysaan ku baax du réew mi mais comme buroog soow lañ non inscrit jóg désigné sëñ Cheikh Bamba Dièye euh, jëg la Joël Félix Dieng sur la lutte libère waaw mais xam nga bu affaire yi moom euh, du du ay appel à l'insurrection de Macky Sall avait fait fait l'appel à l'appel à nit ñi ñooy am droit jóg fii laa ko waxee ci sama saal bii ni fiix toog mag nit ñi ñooy am fullay ne bëreet jóg ne ñun lii duñ ko nangu ne fait, peut faire le boulot place. Personne ne peut le sa Ce pays doit être libéré. te nag yaakaar naa xëy na Macky Sall dina wax balaa ngoon bala balaa suba parce que lii moom bu continuer rek du ko jig ndax cette plainte n'a pas visé Ousmane Sonko je vous le dis je vous le redis di continuer di leen sant yaakaar naa ça fait xaw ma 30 minutes bi may doog a dugg. Eh, yaay booy guddal fan boo meex amin yaa rabbi ñun ñëpp ñu bokk gudd fan incha allah rabbi eh, eh, maman Amadou Diallo maman vous êtes honnête et vous êtes une femme de valeur jërëjëf yaa salaam yàlla nañu yàlla boole ñun rek ah waaw il faut jóg rek wallaahi je t'adore jërëjëf jara na ndi njoro bon ñëpp xam naa on est maintenant. on était à 3000 à 3000 je sais pas xaw ma sax ay lii ñaata la mais quand même euh, gros bisou Ngoné création merci créel ma bokk ah man de gis nga nii la ma sama doom bi Oumy Diop defal ma sol ko mi ngi si mi ngi si internet bi nii jàkkaarloo man moom ma ko defal nii def sama genre robe ma ma sant ñëpp wax ni du com bi jeexul de instant bi sant ma pour wax ni combat bi xaajagul bay jeex ça vient de commencer. bu leen saaga ci réseaux sociaux yi bu leen xuloo ci réseaux sociaux yi mais dafa am la nga xamante ne moom mooy dëgg Tam Diouk depuis Montréal merci mooy dëgg xam nga lan mooy dëgg le combat de la rue gis nga président Ablaye Wade gis nga euh, euh, Sonko mi ngi ci première épi mi ngi ci première ah soxna Oumy Niang non maa ngi. nag ma jël si xeex leen si Macky Sall ba brûler ce pays il faut combattre jël leen dagg leen yóbbu si Macky Sall veut vraiment brûler ce pays il faut combattre parce que c'est pas normal donc moi je pense que tey li taxoon ma doon wax mooy leeral nit ñi que ni. procès verbal yi yu tuddul Sonko waxul Sonko x la wax léegi nag ñoom lu ñu def ñoo xam lu ñu wax seen affaire la mais man bu ma doon Sonko man maam Diarra Fam man man sama immunité parlementaire ba tey maa ngi bu ñu ko defee tamit plénière ba man sama immunité parlementaire ba tey maa ngi moom du yoon du yoon te je pense que wax dëgg yàlla xëy na balaa boobu président Macky Sall dina wax ndax président Macky Sall kat nag war naa wax nag ay Sall lam tooro bu gëdde te ngaa wax réew mi yow lañ ko jox ñun wutoon nañ ñu ne ñu dàq ñu ñii ñoo ñu dàqoon nii tey ñii di wax je vous aime vous love yéen dàqoon waaye xam ngeen ne Ablaye waat du moroomu gone de billaahi wallaahi wa taalaay du moroomu gone waxatuma laa golo ñi ko doon wax góor gi dee na suul leen ko ñépp tey ñoo toog di ko jooy c'est pas normal ce pays est à l'envers ñu gën a góorlu joxante xol yi boole doole yi ngeen xam ni yéen ñépp vous digne fils du Sénégal que tey bu ñu jëlee wax rek te wax te yàlla tax procès verbal bi seetal na Ousmane Sonko ci laaju ko topp ko moom moom topp ko procureur Serigne basiiru Gueye moom toppul Ousmane Sonko ku topp Ousmane Sonko nag léegi yow yaa ko topp waaye moom dani nañ ko seetal x x nag n'est pas Sonko liggéeyewul foofu du liggéeye assemblée nationale ku jël x tudde ko Ousmane Sonko bu ma doon Ousmane Sonko ku ma ca ni ñëwal ma ni la du ma wuyu x ndax du ma x asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di kontaan Eva Guissé merci beaucoup. la dame de valeur may Maimouna Bousso euh, ñëpp maa ngi leen di nuyu jigéen yu am joom jom yooyu jigéen yu am fula yooyu euh, Awa euh, ci ba Sambayela Diop ah dëgg-dëgg sama sama sama mboq bopp yooyu nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ci biir Ami Kalsom maa ngi lay nuyu généralement c'est Ami Kalsom du fàtte mukk benn du ma defee benn affaire bala maa yeggal.